ma làmbaay yaa ngi làmbaay birandu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo di waagu ñaay gisal ndeysaan mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi làmbaloog laa taxawal Ada Fass moom moo ñu wan kanam Jokal moo ñu wan ginnaaw gis nga ñaari mbër yi gis ngeen seen état de physique bàkk nanu waxante la lu ne bis bi dañ ko doon xaar tey egsi na arbitre bi dox na seen diggante nee na leen sifflet moo leen boole waaye moo leen di tàkkale lambala waaw waaw ñaari booy préparé nañ loo xamante ne lu pare la Ada Fass xala buy dem mais Jokal il faut mu jox Ada Fass cër il faut mu joxe cër bu mat sëkk lu muy def mu assuré ko parce que kii mbër mu mag la gis nga changé na tànk yi mbëru la Jokal mbëru deux pieds la mbokk yi arbitre bi sifflé na combat ñaari xale yaa ngi léewtoo Ada Fass sunu càmmoñ Babacar sunu ndeyjoor ñu ngi lew too ñoom waaw waaw Ada Ada Cokkaas. Ada Cokkaas na. day ñëw ba kaw gi lay daj boo bëggee ba ak moom da ngay daj kaw gi ba pare doog a dem. li moom Jokal waaw gis nga ko gis nga ko bu xeex Jokal daa mun xeex. Ada Fass xeex bi waru sax daa war a ñam rek dem waaw. est-ce que du jàppante bi lay wut. bu xeexee Jokal da koy duma Jokal gis nga tàng bi mu teg moo tax mu mën a dóor bu baax. saa bu dóoree day coup bi day dal. da koy remise. te day mën a dugg si daal garde bi bu dugalee coup ba coup bee dellu da koy gunge ba mu àgg moom Jokal bu Ada Fass dugalee day gunge gauche bi si droite am ba mu àgg xoolal gis nga. te gauche du laal. waaw Ada Fass la war a xeexee téye droite am bële parce que mooy gardam mais gis nga garde ba day wàññi. Ada est-ce que a nax ca kaw di xool ca kaw jël tuuti suuf waaw waaw oh. loolu la bëggoon takk na ko daan na ko. waay laay la waay laay la jëlu di ngaayu bii ñoo ko moom bii ñun ñooy boroom yéen ñépp yéen ñépp ñépp doomi réew mi ngeen ñun ñooy dikk cosaani maamoo yéen yéen yi cosaani maam lamb jëlu xiiroo ngaayoo kër gi dem mu njaay drapeau en secours waare ngeen xam ni fii ñun ñoo ko moom lamb jëlu du yaay randu baa ngi ci mun maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal